Euh, lu ma bëgg wax yàlla bu ma ko wax. Euh, fi ñuy dégaaree dañuy commencé waat. Mhm. comme ni ñu ko defee woon def nañ benn émission bay paas mu daal di toj àddina. Mhm. waxoon nga ko. Mhm. sant yàlla sant yàlla bu baax a baax. xam nga des ma du baram la ngay wax nga ne ma maman. xanaa yow balaa ma balaa may yeggale sax nga xam si may waxee. dañ doon chaque jour ñu ne la wax ju yegg dafa koy moom. xam naa fi ngay waxee mhm. dañu delluwaat di santaat yàlla bu baax di jur ci Seydina Muhammad ndax nga wax mu yegg yàlla la neex mu yàlla suñu borom mhm. te woon na le man soxna Awa Fall incha allah rabbi dañuy qualifié mhm. néew ma woon na bu ñuy dem dañuy amee dara de dama ne leen bu ñuy bu sobeel dinañ qualifié te lañ defoon la ñu defoon ISRA loolu lañ koy defaat te yaakaar naa loolu loolu loolu dañul ba tey Sadio Mané moo mujj tiré but ba moo mujj dugal ñoo ji gagné te noonu la demee woon ca ki nga xam ne mooy final ba te it nañ ko defaat kon nag dañ koy santewaat yàlla suñu borom santaat yàlla suñu borom soxna Awa Fall mii taal wu yàlla jàlla ku ko jal mu jal jali ku ko jëlut mu jal jali kon tey nga ne jal mu jal jali mhm. soxorante beeg bon bi baaxul. nañ ko bàyyi mais mais bàyyi xaar bu ñëwagum foofu. damay teel a ñëw bu sama 18 bàyyi rek lii maa yow nag li moo tax maa yow suñu. dañ jubóo ñu commencé raak. Mhm. waaw léegi nag ñu commencé. Euh, waxoon nga ko mu daal di am Sénégal jaar fu mu jaaraatoon. Mhm. maanaam affaire yi nan la dikkee ay gént la woon. wala maanaam sa pétaaw yi moo la ko wanoon wala nga toog ba si gis ko. nee na woon naa la sama doom nga ne man naa ma a ko mënul dara du toog ci seen sées bi. waaw dafa leer may wasaare. ku tegul àddina toog fi seen sées bi. damaa yàgg toog di toj. Mhm. yàlla loolu da koy sante suñu borom. Mhm. saa su ne li ma naan chaque jour ak sama mbir yëpp ci loxo suñu borom laa ko teg mhm. ndax yàllaay maye mhm. sant yàlla julli ci Seydina Muhammad yàllaa may may may wax di toj loolu nag si mbiri suñu borom la ku mu naqari da ngay da dem na ca yàlla nga jooy ko foofu mhm. lii moom lii la yàlla dogal man soxna Awa Fall maa ngi sant yàlla bu baax boo gisee nag ma waxee nii ma waxee dafa am ni mu demee moo tax ma waxee nii ma defee ndax man kenn musuma dégg ci wax joo xam ne na su leen la man chaque jour sama wax chaque jour may may tuuti ma ñëw bàyyi ma ma sa sama doom s'il te plaît may ma ma yeggale da nga may ma yeggale boo ma bu ma paree nga lancé waat may ma tuuti ma ñëw ah, waaw dama ne mhm. ku jëlu jooy yaa xam la ngay jooy ku nekk xam nga ki man danga ko dul nangu mhm. man soxna Awa Fall maa dëggal sama bopp def li ma war a def mhm. bi may génne naan euh, dañuy dañuy qualifié kenn gënu ne dañuy qualifié kon dama koy sant yàlla suñu borom kuy jooy nag na nga jooy yàlla man li yàllaa ma ko may déggoo ma de fëgguma sama dënn néew ma maay kii wala maay kaa mhm. dama ne rabbi sama waati wala addi borom jaami moo ma may lii ma yàlla jox kon nag alhamdulilah bi alamina tey ku dewoon ci suuf doon ma saaga rek te yaa may woo di ma ñaanal kon sant yàlla alhamdulilah sa léegi wax nga say biir wax maanaam dafa mel ni da nga jàpp ne dafa am ñoo xam ne yéen a bokk ba métier bi di ngeen soxorante seen biir. dañuy soxor soxor nañu bëgguñu ko dem ku ne nag am na lu la yàlla may nag ku ne nangul li nit lu ko yàlla may boo nangulee li nit lu ko yàlla may rek nga sant yàlla ndax yàlla mooy wàcce ay yonent yooyu wàccewul kenn kese. dafa wàcce yu bare bare ne am na lu yàlla jox mission bu ne am na yàlla teg na ko say loxo kon nit ku ne la yàlla wàcce ci doo ngay doomi aadama def la wax kat jël mu doon bidéew bu feeñ am na ñoo xam ne am nañ ay alal ju bare te kenn xamu leen dëgg la eh yàlla la neex moo tax doomi aadama yi xam ma lii la yàlla dogal ci man. ku ko bañ nag dangay sonn mais yàlla la neex tamit. yeneen voyante yi tamit wala yeneen voyante yi. ba yónnu ma ko kenn man soxna Awa Fall. waaye mais mel kenn musul fe kenn musul dégg samay vidéo dama ne dama bëgg nga déglu ma kenn musuma dégg samay vidéo man soxna Awa Fall may wax naka su lay noonu wala ma naan beneen mënul dara déedéet. duma ko defaan ah, ndax bu boobaa damay weddi yàlla suñu borom te man sama lépp ci sa loxo suñu borom laa ko teg dama ne la bañ bañ bañ bëgg waajaa ngi nii waajati ku ma ku ma tooñ nag man soxna Awa Fall dama lay duma amul werante